wa auzu bika rabbi ay yaxduruun assalaamu aleykum wa taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu lislaam di nuyoo bu sell tey nuyoo bu kawe di ñaan borom bi subhaanahu tabaraka wa sunuy kàddu fekk leen ci yërmande yàlla ak ak njéggalam mu mel ni dañuy dellu siwaat ci sunu jataayal yóbbulu ndaw ñi muy émission bu ñu baaxoo def di ci jàngale ak di ci fàttalikonte ci sunu wàllu diine muy émission bu xam-xam waaye muy émission jàngale ñu nekkoon nag doon jàngale téere bii ñuy wax la zaadu zawi taxallumi muy téere bu am solo sunu jataay bi weesu ñu ngi doon ci ndénkaaneel Sëriñ Tuubaa yi mu doon wax ne na ngeen ku jëm ci sàkku xam-xam te ngeen jaayante ak seen bakkan ndax xam-xam koy sàkku moom faw nga jaayanteeg sa bakkan wala li nga bëgg doo ko am yen ndaw ñi yéen waxambaane yi bu leen yeexee sàkku xam-xam ndax deekat mi ngi ñëw te bari bari na ndaw yi wax naan nañ xaar ba nekk mag door a sàkku xam-xam waaye nañ xaar ba nekk mag door a góorgóorlu ci ak jaam yàlla nañ xam ne dee mi ngi ñëw te dee day bett te dee moomu de lu weex la dee lu weex la waaye nag dee moomu de kenn mënu koo daw te bu xasee bay ñëw moom faaw day ñëw rek Sëriñ Tuubaa ko nee na ngeen gaawantu balaa dee kon ñu ngi tàmbalee tey suñu jotaay tey daal di wax kullu man képp koo xam te nii lam yata baadar gaawi wut fi sibaaxu ci ndawam ila taxallumi jëm ci sàkku xam-xam waxaadahu tam womat ko xawaa bànnee xam fa xalla néew na ay mu am fiihi ca moom almatlaba sàkkutéef la is ngir faatahu faat na ko tey siiruhu ak yombalam waxta sila waxtu ndawam Sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam te nii ba nga nekkee ndaw jëm ba nga nekkee ndaw gaawantuwoo jëm ci sàkku xam-xam lu dul topp sa bànneexu bakkan rek nga dem ba nekk mag na daan ne kon naa jóg jëm saako ji xam-xam nee na fa xal la ay yanaara néew na nga am ko de néew na nga am la ngay sàkku ci xam-xam ndax lan moo tax mu ne jamono jam yombee mooy jamono ja nga nekkee ndaw ci jamono joojee la yombee te wuti woo kon néew na nga am ko kon na nga góorgóorlu gaawan ba nga nekkee ndaw ndax xamal ne boo nekkee mag bëgg a wut xam-xam sag am ko de dina jafe lool mu ne wa man naxaakumu ku leen tere anit taxallumi walif sàkku xam-xam fa innahu naka moom moom maykat yaquudukum dale leen wommat lim neexami jëm ci mbugal wa firru daw leen de minhu ca kookee ca moom moomu innahu naka moom kat yajurru day xëcce kullu man képp koo xam te ni zannoo njort na ko bi xayrin ci aw yiw li fitna jëm ko ci fit jëme ko ci fitna mu ne képp koo xam te ni jamono jii de mi ngi leen di tere ngeen sàkku xam-xam ne na xam ne kooku kat da leen di wommat kon jëme leen ci mbugal ku la tere sàkku rek mu ngi la jugal ca mbugal mbugal rek la la jëmee Sëriñ Tuubaa na ngeen ko daw daw leen kooku ngeen ko daw te xam ne kookee kat day xëcc nit ñi jëme leen ci rawatina yow mi njort ne kooku mooy woote mooy lu baax. yow mi njort ne kooku mooy wote lu baax na nga xam ne kooku dalaa xëcc jëmale ci fitna te loolu yenn saa yi nga gis ko ci jamono ji koo xam te nii la muy woote du dara yàlla du yonente bi du sunna du dara waaye nit ñu bari màbbu dem topp ko kon nag lu jara wattandiku la kooku nag mooy ki nga xam te ni ku njort ne la mu yore baax na ba nga dem topp ko mu jëmale ci fitna rek kon ngeen ko raw mu ne is ngir kullu man képp koo xam te ni mana tere na fi zaman ci bii jamono minat taxallimi jëm ci saako xam-xam fa innahu na ko moom ne daxaa day woote li biddaxatin jëm ci bidaa saniyaati bay aji ñaaw is ngir alxamal jëf in lam yakun ndéem nekkut bil xel mi ci xam-xam saabahu rax na ko xalal ak yàqute wala nga ne xalal ak xët mooy yàqute rek mooy na nga xam ne ne képp koo xam te ni jamono jii kat mi ngi woote ci lu dul sàkku xam-xam mais na nga xam ne kooku kat ma nga la jëmee ci biddaa bu ñaaw waaw biddaa bu ñaaw la la jëmee kon ki topp na mooy ki topp biddaa ki topp biddaa mooy ki topp sunna kon nag na nga xam ne képp ku lay woo ci jamono jamono jii la woo la ñëwal ci lu dul sàkku xam-xam la wax ne xam daal amul mën nga ko bañ a sàkku te di nga jariñ yi sa jaamu yàlla wala amul njariñ na nga xam ne kooku dalaa woote ci bidaa ndax na nga xam ne kat jëf jëf ju baax mënul am de fekk xam jiitu ko bëggee jëf jëf ju baax ta fekk xamoo jëf jooju day jaxasoo ak ak yàqute jëf jooju yee am na jëm mooy ak yàqute boobaa nag jëf yëpp mën naa yàqu kon nag li ma lay digal mooy xam lul nga sàkku xam-xam njëkk ngay jëf kon boobaa boo jëfee jëf ja nekk jëf ju rafet jëf ju baax ju ñu gërëm ju topp kon nag lii lu jar a bàyyi xel kon day mel ni dañuy yemale suñu jotaay tey di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla defal digg ak topp di sant ñi nga xam te ni ñu ngi teewlu jotaay bi yëpp bokki am di jàmm yi yëpp ñu leen sant di gërëm ñaan suñu borom defal ñu yiw wu rëy te barkeel suñu dund ñu ngi sant nekk bitim réew ak ñi nekk ci biir réew yëpp ci teew gi ak topp gi leen wax yàlla nañu yàlla fay aw yiw yàlla nañ suñu moom defal dégg ak topp yàlla na saa borom sellal kon nag ngi ñaanal it mbokki Mouride TV yëpp Mouride TV may comme ñi koy topp ñëpp ndax seen bu am solo la diine rek moo ko ñor ñu ñaan yàlla dina yàggal taxawaay bi lu fi dëng ci jëm yi xew yi la in uridu illa al islaaha mastataxtu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey